وقد فارق الروح إلى الله وحده ينال مقام الله رجال خيري من ين دائرة حربة الوسطى nee mu ngi leen di nuyu nee mu ngi leen di nuyu mu ngi leen di wax salaamaaleykum nuyu boppam waaleykum salaam seen na yow bi ne mu sant bu baax subhaanahu wa taala ci may gim ñu may asura daaw fekk ñu fii ñu toog mu ñëwaat bañu fi ren bañ man fee toog ñu ngi sant ci loolu di julli ci rasulullahi wa sallam di màggal Mawlaay Sidi El Hadj Omar lépp moom la ne lépp Seydi El Hadj Omar du moom ne lépp Seydi El Hadj Omar la mu moom la de lépp Seydi El Hadj Omar la mu ne secret nag biñ ko weer waaye lépp El Hadj Omar la dañu wóolu rek mu ne nañu wóolu rek te yaakaar te nañu wóolu rek te yaakaar te gëm mu ne su fekkee loolu doyul mu ñëwee mu ne yëpp buñ ko wuññee mu ne kon du baax de nañ ba noonu lépp buñ ñëwee lépp du baax de mu ne yàlla faame mbóot te fa koy nëbb yàlla yàlla lu mooy nëbb ragalul kenn yàlla ragalul kenn lu ko lu ko nit da def wala lu koy wax waaye fay nëbb nag mu ne fay nëbb de moom nag ne moom nag ku yàlla dimbale la. ku yàlla dimbale la. yàlla ko dimbale. yàlla moo ko dimbale. ndaama gi loolu juddoo. mu ne ndaama gii. wala Seydi El a Omar juddoo. fi la bàyyam fi la ko bàyyam jàngalee mu alxuraan. fi la ko bàyyam jàngalee mu man may ko wér. may ko wér. may ko muqadam. may ko muqadam. bàttali ko su na ko taxawee. bàttali na ko su ma dee nag ma taxawee. la ko la defoon def na ko. la bàyyam defoon def na ko. na mu ko defee nag. na xam naa ko du ma xam na loolu moom waaye du ko wax. nañ ko bàyyi noonu le mu dem wuti xam mu dem wuti xam ba mooy wuti xam fekk na li moo xam xam na ko na li mooy xam na ko waaye yàlla fokk mu dikk ak dogalam waaye yàlla fokk mu dikk ak dogalam muqaddam lañ ko mayoon muqaddam lañ ko mayoon muqaddam wal gi ñaari ñaari muqaddam la góor gi joxoon maamaali ba mu dajee ba mu dajee ba mu dajee ba mu dajee ba mu dajee ak Amadou Chaye la tinkeeku booba la sëriñ bi tinkeeku booba la tënkatuñ ko fenn tënkatuñ ko fenn fekk du doon ku ñu war a tënk fekkit nekkutoon ku ñu war a tënk du ku ñu war a tënk duut ñu war a tënk waaye yàlla fi mu jaarale mbir mi la jaar waaye yàlla fi mu ne fi la mbir mi da jaar foofu fa laa jaar foofu fa laa jaar mu ne loolu la moo tax mu ne leen mbir yëpp Seydi El Hadji Omar mu ne moom fekkee am na lu mooy wax loo xam ne dana neex nit. wala ma di wax wala muy def. wala muy def. lu mën a kontaan nit. lu mën a kontaan loo nit. Seydina Diop war na de. mosuma toog. ne moom mosta toog. daaray nit. dara daaray nit. kooka naan ko Bachir nii wala na le. loolu la mosta am. lépp ci moom la. lépp Seydina Diop war. lu ko neex na yàlla ko neex mu ne yàlla. lu ko neex def de. soo bind soo mu ne su bi naan. roobo roobo. ko mu yot ko sëriñ bi topp ba pare. ci commencement bi. ci daf koy wax ne. téere bi nga bind anamu. bi ngay bind mu ne njëkk du gis lu mu dindi ci roobo ji mu indi téere bi. mu ne ko wax baax ne ko ni ne baaraamam bi joxoñ ko. ne ko Bachir yal na yàlla jox la xam-xama wax bi. mu ne boobale mu ngi bind ñu de ko toppal. mu ne boobale luy wax bi yu sax moom xamul ko. xamul loolu le mu ne ku nekk. jaar na fa. ci ay xat-xat. yoo xam ne du feebar. def jëfi nit la. waaye sëñ bi daf ko daan wax ne. yéen ñu de def Bachir bu ci sa yoon ne. Bachir ku la mën a teree yeggaamut. fi ma bëgg nga dem. da nga fa dem kenn du la yit demal toog mu ne luñ ma sa def loolu la koy wax Bachir déglul sama làmmiñ wi ci yow bal déglu li la nit ñee wax déglul li may wax nga di ko dégg mu ne ko Bachir su ma la noon doj bi ne file demal dëkk fa nga jóg dëkki fa xat na dana la fa fekk waaw waaye soo bayee li ma la wax dëkk dem ba Dakar nga wut fay dëkk yow kenn fay ne de waaw yow kenn fay ne de mu ne coow lee bëri waaye du lii de mu ne moom waxam la gëm gëmut li nit ñi de wax takkut li nit ñi wax ne am na sulaw mu ne loolu takkut ko mu ne waaye koog li sant na ko de sant na ko bu baax mu ne ñi nga xam ne xam nañ ko ca cosaan ci mag ñi fi newoon xam nañ diggante mook sëriñ bi li ci nekkoon mu ne dem nañ boobu taalibe bu muy sëriñ bi dafa lijaasa moom mii newu fi fekk mu yónni ko wala mu ne ci leneen ndax daanu dem fenn feek waxut ko demal du dem moom mi ne lay woo. ca njëlbeen bi mu ko daan woo. da daan yëkkati kayit jox ko. na ko demal sotti ko. gannaaw gi mu bos kayit gi mu koy jox. na ko demal jaarale ko barab sàngam li koy jox jaarale ko barab sàngam mu ne loolu rek la koy wax mu de mu di dikki bind yëpp ko mu ne kooku li diggante moom moom baax jërëjëf sant naa bu baax. mu ne jërëjëf jëf sant na bu baax. xol bég na lool. ne xolam bi bég na lool. waaye nii mu bégee yal nañ ko bégee. nii xolam bi seddee yal na ko suñ xol yi ne yàlla dogal na. taalibe Seydi El Hadj Omar moom la. Seydi El Hadj Omar ko may wér. moo ko def it xalifa général. moo ko def xalifa tariqa Cheikh Tidiane. mu ne moo ko def xalifa Cheikh Tidiane xalifa Cheikh Tidiane tariqa Tidiane. Cheikh Tidiane sama baay. mu ne Cheikh Tidiane duwul baayam. duwul maamam. Alaaji Seydi Alaaji Omar Cheikh Tidiane du baayam. Cheikh Tidiane du maamam. mu ne xalifa google xaaju wut ci maam wala baay. mu ne ni leen la ko def teg ko loom li. na ko Bachir tënkuma la. tey duma la tënk. la Momadou Xaali waxoon Cheikh Omar moom laa la wax Bachir Bachir anta minal xulafaayi laa minal muqaddamin mu ne loolu la waxoon ba mu ne xanaa moom moo am lu mooy bañ ba lijaasam gi mu bind ko ni mu bindee lijaasaay la bindee gosam ndek xam lu mooy bañ. mu ne bi mu bindee yot ko it foo ko jàng na ko waaye man de Bachir yaa bind waaye man de li ma wax na man li ma wax de. mu ne ba mu ko ñàkk a wax dama bëgg a wér. fa ne ko Bachir sama diggante yow ni ne la ko joxoñee baaraamam na ko Bachir li jaar sama diggante yow loolu la moo ëpp wér la loolu la ëpp wér la mu ne waa baax na. daal ko may mu ne loolu la ko waxoon de mu ne tumi tumi defuñ ko de lu ñu kale seytaan ak bànneex ak bakkan de mu ne yett yooyu de waaye su duwul loolu le fu nekk romb nañ ko fu ñu nekk romb nañ ko mu ne maa soppeeku yi yeneen yi mu ne loolu mënta ñàkk de mu ne ndax gor gi fa doon ñaan te lam doon ñaan faw yàlla nangu ko mu ne sant na bu baax mu ne bi ñooy dikkat ci moom moom sañut ak lu mu mën a do toog ci jotaay nit ñi wër ko ndeg Seydi El Hadji Omar ay doomam ne fi te joxul leen hadiya mu ne loolu la sañul ko de moom ku ko fekk fële ca xabru ba wax ko ko wax ko nii mu defee dana la ne foogoon naa noonu de dana la ne foogoon naa ko de mu ne wóor na ko war yàlla. ne xamoon na ne. bu ko nit ñi waree. da ko siyaar. balaa ñu koy jox dara njabootam gi dana leen jox. bu ne loolu na ko de. mu ne ñeneen ñoo doon xaalis bi léegi. juróom fukki junne jox na leen ko. hadiya. su ko deful ana na mooy def. mu ne moom ñeme naa jël xaalis. boo xam ne Seydi El Hadji Omar ko moom. njabootam toog benn dërëm joxul leen ko jël mu ne kon su tëddee du nelaw de su tëddee du nelaw mu ne lool le gërëm na ci yàlla lool yàlla mënoon naay bés ba kanam bi wala seytaane def loo ko loo xam ne du xam ne Seydi Yàlla Jamar am na doom faay foog ne moom rek da doomam mu ne te loolu mënta am de Seydina El Hadj Omar ay doom la amee de. doom yoo xam ne. doom yoo kenn ku nekk man nga la nga dow. suñ ko gëmee suñ ko gëmut. kuñ topp kuñ topp kuñ topp kuñ topp te jeem de. kenn ku ne la nga doo donga ko. mu ne way wiñ mujj way léegi. feeñal la loole de. kenn nit la. jamono bi muy dund. xamut ku ko ñaareel ci kaw suuf. ni mu xamee yàlla bi muy dund moom kenn ko ko xamee ci jamono. ni mu xamee rasulullaay moom kenn la. nim xam ne moom moo ko ci. nim kenn moo ko ci ngëbee woon ci jamono joj le. nim xamee alxuraan moom kenn la woon. ci jamono boobale. jamono nag fay way yàlla day bay nit. gannaaw fokk nag nga am loo fi baax. ñu mën a laal la nga baax ne lii la lee la. man loola ma naay do doom mën naay do taalibe. mu ne mën naay do doom mën naay do taalibe. waru sirri waarisu sirri taalibe fakoy ɗo taalibe fakoy ɗo doom man nangoo topp baayam fakoy ɗo doom man na koy ɗo doom man nangoo topp baayam doom man na te nangoo topp baayam man na koy ɗo mu nekk haarifu kabir mu ne sa baay su nekkee haarifu kabir mat sëkk fi yàlla mat sëkk fi yàlla waaye du topp la ko nag waaye yow topp la ko doo dee waaru sirri du la dénk mbootam doo doon mbootam mi de lam xam ne mu ne te su la ko joxoon sax it dana rëcc. suuna jur ci sa loo yi. da nga defee defin woo xam ne. loola léegi ñu dénk la moo laay baax loolaa laay baax mu ne moom nag waari su siri sëriñ bi la waaw waaw nee na waari su siri sëriñ bi la de waaw waaw mu ne loolu la sëriñ bi wax na ko de waari su sëriñ la de waari su siri. mu ne ci xulamaa wu sofiye ci lay feeñ boo demee ci arbaabu mulóog wali yu anti la ñuy wax yaa fi xaar buur bi bu dee yaa koy wutu waarisu sir nag mooy ki a xam ne boo dee yow xarif bi ki la wuutu ci sa xarif ga moom la ñu wax moom la kenn doon wax ci Abdou Ali Abdou Ali bi nga doon wax léegi ne Abdou Ali taalibe la boo xam ne sëriñ bi mu demoon Abdou Ali la tudd moom it taalibe bi ak sëriñ bi ñoo bokkutoon waaye sëriñ ba mu demoon kooku la du sëriñ seytaane la la moo de liggéeyam guddi ak bëccëg waaye kile moom fa dégg Abdou Ali Abdou rek. moom mu jóg laxasaay jaay la mu am di ko jox ko ko addiya sëriñ boobu ki wax ne moo de sëriñ bi jox ko sémmiñ na ko demal ci àllam sangam nga goral ma ko waaja dal di dem sawar xànd ak mbégte gu ma teg dem dal di futeegu mburu mi ko sëriñ bi jox mburu mi fa wow mu da ko yey ba mu mooy yegg ci garam gi mu njëkk a jot bi mu ko koy gor. fekk na ki nga xam ne. fekk na ki nga xam ne. jamono mu ngi ci boobale jamono mu ngi ci loxoom. mu ngay tàggu. mu ngay tàggoo. mu ngay mu ngay tàggu. diwaanu aari. diwaanu ñu ngi daje da seet ki ngi ko de seet kile koy wuutu. mu ne ñi ko xam. dëgg dëgg dëgg. caari fi ne ya fa newoon. da koy yedd. mu ne loolu la baatin la. ñu naan ko yow dey sëñ bi waxoon nañ la li la de. noonu nañ la dëkkal ci njënd yi wala nga takk jabar ndax nga am doom mu donn sa mbóot mi boo lëgee mu ne leen mbóot mi ma yàlla jox xam na ko koy donn de kooka leen ci xàllab sàngam xàll bam ne noonu le suma rooxu gi buy jeex maqaam suma ma mi foofu la jëm mu ne bi mooy matalan la garab gi daanu mu jot fatul akbar sànni semmeñ wa mu ne jaadi wut sëriñ ba de mu ne nañ ko mbiram sëriñ bi xamal nañ ko ne ki du sëriñ mu ne kookale nag muriidu saadex la duwut ku ne muriidu saadex man nga loolu le déedéet mu ne moom nag waarisu sëriñ la ci sëriñ bi mu ne jiili mi nga le Abdou Khadir Jeylaani ñaar la àndatoon ñuy siyaara ji waxu ñoon siyaar jiili moo doon siyaar ñeli fañ doon bañi kumpo kenn ki dafa wax ne kii de ñu jëm fañ ne fa bari xam-xam man de su ma demee daa ko laaj ba mal ko kii de wax de waxuma sax mal ko waaye daa ko laaj ba laaj ko lu mu xamul daal di ñëw nuyoo kii ko ba laaj ko laale loo xamul waaw jiili na ko yow dey ci sëñ bi na ko yow de li may xeñ ci yow mooy safara léegi ñaaw ak teggiin mu ne keneen kii sëriñ bi na ko yow de foo jëm xaama ko mu ne yéen ñaar ñi la ñëpp da ngeen perte mu ne sëriñ bi ne jiili yow de gis naa la ca Baxdaad yaa ngi teg sa ñaari tànk yi ndëggu yi sa ñaari tànk sa ñaari ndëggu yi naan xaddama haataani ala raqabati kulli waliin mu ne ñele xamoo leen tey xam nga jéeri ñele buñ la laajoon nuñ tudd xamoo leen mu ne te moo ci gënoon a doggu ne ca boobale ñoo ñu daal di dem mu ne jiili wax na loolu le ki mu ko waxoon ne safaraak may xeeñ ci yow boobale alxuraan moo ko dàq su simile mu toog mënul a fexe ba xam benn baat. mënta fexe ba xamati benn baat ci alquran. rubamaa yoodu. rubamaa yoodu. la si na kafaroo. law kaanoo muslimin. lépp képp képp moo des ci li mu xamoon ci alquran. lépp dem na. mu ne ko nag xam nga safara la jëm. taalibe la woon. waaye ñàkk tegiin baaxul. mu ne yéen nag. mu ne moom gërëm na. fina xamna fi la bëgg ñu yegg ci zahir ci lañu ne yalla lañ ci yegg fim bëgg ñu yegg ci batin yalla lañ fa yegg yalla lañ do borom mi koppor do borom mi futuat wax wax du la naa rabbi taqiqa wilayatana wataat al xaq mu ne waaye bu ko njëkk ca kaw boo da futowaati Hmm? wardu lana rabbi anwaran wa ma'rifatan bada futuhati mu ah, ne moom daal sant na waaw rajo bi de mu ne mu ngi sant bu baax gërëm na it lol mu ngi ñaan yàlla ci ñun dañu dénk mbiram o bi taqwa la ne mu ñoo dénk ragal mu ne Cheikh na Tijaan bu ko mooraan wëraan oo siikum bi taqwa laay laay wa mu ngi ñoo dénk ragal yàlla topp suna si yonent bi mu ñu koy dénk loolu mu ñu koy denk mu ne loolu le gune du ci dara de nañ toppatoo diina nañ toppatoo lislaam ba nañ toppatoo suñu tariqa bi nañ nangoo fàggu dara it da dagan tem dagan nañ nangoo fàggulu dagan nañ fagulu dagan buñ fàggoolu dagan yalla joxñu kom kom joxñu wasak buñ man de dundé ñu man tay tedd suñu njaboot tedd ci né xolam set na bu baax waye nim bëggé bëggee suñ xol sédé nim bëgg ñu mel dana ñaan yalla lolé ñu mel nonalé bu mu bàyyeekoo nag. mu ne bu mu fi bàyyeekoo. fàtte loolu le. loolu le na sax ci xolam bi. guddi ak bëccëg. mu de ko ñaan yàlla. ne mu ngi koy ñaan nag. guddi ak bëccëg. li mooy ñaan ci moom. li mooy ñaan ci moom. da ko ñaan ci kuréelu Seydi El Hadji Omar bi. mu ne foog na ne kenn ku koy ñaan ci àdduna si amut. mu ne tey jëlee naa dinaa génn lool. mu ne bi muy génn comme daaw ñu ngi naan tey de sëñ bi naaje na. mu ne li ko tax a naaje loolu la de. mu ne faam soxla ci yàlla. te wéet ak moom. mu ne duut fu mu ne. fu ne mu ne fa. waaye man man mu ne manut moom fu ne mu ne fa. su foo xam ne moom moom rek fa ne. kenn du ko jax jaxal. fa ko naan yàlla. waaw ko naan yàlla. mu ne dana ko yude su ko ne yàlla. dana ko yude. mu ne soo ko wooyee. dana la wuyu. dana la woyu de. mu ne ndax ndax xarab lay lakk. wala wolof lay lakk. mu ne moom waxuñu xarab. yàlla la ko wax. yàlla. moo ndax du noonu la ñu mu ne nit ñi fa ñu wóoluwul. yàlla ci wolof. ismu la sam ne yàlla ci wolof. lismu la sam la. ne bone yàlla. teg sa loo deseloo ko ci kaw lenn deseloo ko it ci suuf lenn boo ne ko yàlla deseloo ko ci kaw dara deseloo ko ci suuf dara mu ne fu mu duwul yàlla xamut déedéet mu ne fu mu yàlla newut wàllu gune yàlla la ko bu a xool doo ko yàlla. mu ne kon soo koy xool doo ko ne yàlla. loo fa indi kenn boo fa indi kenn. mu ne bal fay indi kenn. boo fii yaa ngay ñaan. fii moom ngay seet li nga bëgg. seet li nga bëgg. boo ko seet boo dee tartib. kon xamula yàlla. de lim naan lii lële la lële. mu ne jaru ko waa jaru koo teqalal de déedéet jaru koo teqalal de. mu ne na xol bi tibb rek. li nga bëgg. mu ne nañ yëg ne ñaan na ko de. ñaan na ko de. mu ne baayam. li ko taxoon na toog. li ko taxoon na toog. jëlee wut ko ci kenn. kenn ku moom. kenn kum ko jëlee xamul ku dul Seydi El Hadji Omar. mu ngëb kurus gi def loo xam ne moo jox. mu ngëb kurusam gi da ci def lu ko keneen jox. Mm. mu ne loolu du am de. lim ma jox. mu ne lim ko jox. loolu la ko ca waxoon. lam ko ca waxoon. ci tam xarit. ci tam xarit. loolu la doon wax. bu ko kenn laaj nag. mu ne nag waaw loolu nag moom na ci dégg doy. du wul lu ñoo laajte bu ko kenn laaj. waaw koo ko ci laaj it nag taxul nga jot ci. déedéet taxul nga jot ci. mu ne sirrun min al asraar mbóot la ci mbóot yi ñu ne moom waxut ne ko barab sangam laa ko gis mu ne fa ko rek curab bisab tam mu ne ko Bachir dama jàng nangam te bal baat jang nangam te bal ko baati mune lo le ko taxoon a toog file moko ko taxoon a toog ko soko jange bo matal la nga bëgg wax nga wax ko mune bam te matalee daayira toxor watul wusxa la njëkk tuddu mune mu lu tax mu njëkkee leen yene mom bes bi mune bo ken nak nag ka dëkk Sénégal ku dëkk bitim rew ku ne feneen dem julit nga tuddu na la su fekke du wala julit ñaan naa yàlla ci barke xorma xorma. taa bi fi ne ñaan na yàlla. la ma doon ñaan ci xormaay la mu doon ñaan. ñaan na ko ci ñaan na ko ci. bu dee yéefar bu dee yéefar. tàggatal ko lu mooy lekk. yàlla tàggatal ko lu mooy lekk. ak lu mooy naan ak lu mooy xodo. bopp bi sa xalaat ba jot. loolu yàlla ko xam. ba mi saa yëpp amul mu ne boobu dara de. ku ne xam la. mu ne duhut nit a koy wax waxal nangam. ku kooku jëleewut foofu de duhut nit a ko naan waxal nangam de. moom lu mu mës a wax. mu ne lu mu mës a wax. lu mu doon rek wax. fañ ko ko. Ah. day toog rek wax ko ne ko waxal nangam. mu ne ko wax. mu ne moom kay yàlla ñu yàlla suturaal de. yàlla ñu yàlla de. yàlla yàlla fay ñu de. dinañ ñu tiyaabu yokk ñu yokk suñuy fan yokk suñu wasak suñ liggéey yàlla na gën a baax suñ poos yi yàlla fees tëpp ak xaalis bu leew dom ñuy tëj ba xamatuñ fi ñu tëj xamee ay waruwaay bopp bu ñu jógee bu ñuy jaay xam lu ñuy jaay xamee ay magasin yu ñuy jaay am am kër yu baax. am kër yu baax. dëkkuwaay yu baax dëkkuwaay yu baax. am wér gu yaram am wér gu yaram. am njaboot nga dund. am njaboot nga dund. sunu sunu sunu laay. te ngay ci sunu sunu sunu laay. nga tariqu Cheikh Tidiane. loolu la yàlla ñu ko yàlla may. képp ku fi ñëw. foo mën a bàyyi ko ak foo mën a bàyyi ko moo xam day joor wala càmmooy loo indiaale loo indiaale ci feebar yàlla ba ko yóbbaale yàlla na ko wér kat bu fekkee xaaju nga indi xaaja bo yàlla faju boo fi indee bàkkaar yàlla na ko yàlla baax boo fi indee jaaxle xol yàlla yàlla fu ñu jaaxle nawet bii yàlla ko yàlla àggal may ndox mu ko ma dal mbay bem ñor xom teñ mu doo ko te dellu ko bayaan fii ñu toog nii mboolem ñu fi bokk toog nii déwén heure bii yàlla nañ fi bokk toog te toogee fi jàmm gën a bég gën a naat gën a naat gën a oom loolu la yàlla ko yàlla def mboolem ku fi ñëw ne ci mbooloo mi moo xam ku ziar dem la wala ku toog la ñëpp ñëpp kenn ku nekk la ngay indiwaale te ay xaajo yàlla na faju de yàlla xam na ko xam na it fa nga dëkk yàlla la fa fekk fajal la ci sa soxla mu ne soxla si soxla yi ñu tawat ci néeg bi yëpp tey yàlla yàlla faj soxla yooyu de yokk mu yàlla yàlla yokk maqaama yokk daraja yokk xam yokk njub yàlla ko man yàlla ko def yaara bi yàlla yàlla dimbale ñu bii yàlla bu mu nekk suñ mujj ak jotaay de yàlla nañ jotaayu ay xat yi xat yi ci kanam xat yu yàgg loolu la yàlla ko yàlla def yaara bi mu ne li mu wax yëpp ma daa dóori lay wax moo tax dóori lay wax de yàlla yàlla dimbale ñu de te xet li ñu te yërëm ñu yàlla yàlla matal suñu muraado yàlla suñu xol sedd ni mu barke rasulullah mu ne ñu ñaanal ko yàlla moom tamit yàlla bàyyi ko fi te may ko jàmm na ñaan yàlla mu may ko jàmm mu ne nañ ko ñaanal yàlla may ko jàmm bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam a kanam a kanam te may ko jàmm lool mu ne su fekkee mu ngi toog ci kaw suuf si buñ noddee mu dégg ko te du mën a dem kon amul jàmm de mu ne balaa am jàmm dëgg su déggee ñu nodd waaye jóg mën a dem ci jàkka ji de waaye ñu nodd mu jég mu ne loolu bëggul ko de fa bëgg heure buñ noddee mu mën a jóg dem de wér. mu ne wér. mu ne bawul xel wér de. wér. mu ne ndaw moo de ba xel wér te moom dootu ndaw. <laughs> mu ne du ndaw de. ndaw moo ne ba xel wér. lu mu wax lu mu wax. mu ne te lu ko sëriñ bi daan wax. gëm na lool le. yow mii de. yow mii la de. ah yow de wéet jafe ci yow de. mu ne loolu la ko daan wax de wéet jafe ci yow. ñi nga xam ne xam mu ne ñi nga xam ne xam nañ ko man du seen kanam mu ne mu nekkoon fañ nga xam ne fañ ko daan tudd ci kanamam nga xam ne sëriñ bi fa ko daan tudd ci kanam ñooñu le fa leen daan wax ne kile mu ne duur ko de wedde duur ko de wedde li ci man mu ne li na ci man ku ko amee doo wet mu ne loola na xamul lum doon mu ne loola dégg gisagut ko moom waaye loolu mu ne loolu daan wax de ñu talal ñu mu ñaan talal leen fu waay ne na talal yàlla ñu àgg ci jàmm fekk fa jàmm del si faat ci jàmm fekk ñu fi ci jàmm وقرفار قراء إلى الله وحده ينال مقام الله رجاء خيري